jaaree sax enchaîné ànd ak presse bi dem def li nga xamante ne moo di seen caravane donc euh, ki ngay di génn nii aussi tam moom moo di ci protocole Anta Babacar Ngom bi la donc mu mel ni rek mbir bi dañoo pose donc peut-être que nag ñoom ñu ngi jàpp confiance du dundee yaakaar ni rek juge bi ak procureur bu ñu duggaatee rek naam ñoom ñaar bu ñu feggeewoo ba pare rek ki nga xamante ne mooy Bougane Gueye Dany mën na ñibbi ci këram comme mën na amaat beneen version mais ak lu ci mënti am rek ñi ngi xaar mbir mi euh, buri ndaxte doon na cas bu sensible non c'est une petite pause parce que bu fekkoon euh, pause bu gudd la dañuy génn dem naani café wala dem defi leen wala dem toog seen oto yi xam nga wala ñu ñëw jox rendre ñu compte uh-huh. mais soo gisee ñoom boobu ba léegi génn ñu rendre ñu compte ça veut dire que ñoom am na lu ñuy xaar uh-huh. mënaguñu ñëw ci presse bi rendre leen benn compte uh-huh. moo tax gisoo ñoom ci leader yi kenn génnul malgré que ñu ngi taxaw ci bunt bi mais génn ñu ñëw envers presse bi parce que amaguñu argument bu ñu jox presse bi. ça veut dire que kon sûrement juge bi moo ñaan une petite pause le temps que moom muy mën a jël décision consulter membre bi pour mën a jël euh, décision finale. Mhm. boo xamante da koy jëble ci euh, Bougane Gueye Dany ndax dañ koy bàyyi mu ñibbi këram mu wéyal campagne am ndax dañ koy bàyyi euh, mu ñibbi këram ndax dañ koy condamné. Mhm. wala dañ koy condamné avec sursis. loolu yëpp euh, du yàgg dara di ngeen ci xam dara du yàgg dara dara dara dans un instant mhm. dinañ ci xam dara en tout cas lu ñu mën a wax mooy dispositif de sécurité bi renforcé nañ ko mhm. gis nañ aussi auto police bi nga xamante ne ñëw na dugg ci biir tribunal bi ubbi bunt bi bunt bi jàkkaarloog li nga xamante ne nii mooy salle d'audience bi mhm. loolu yëpp ay message la message yooyu nag euh, fii ak quelque temps dinañ ko décortiquer euh, lan lay lan lay wundu dinañ ko décortiquer dans un instant li ñu li may ñaan rek mooy sàng li ma lay wax lépp nañ ko yemale tey voilà parce que fii Tamba moom ñëw fii metti na ba pare tey boo xoolee ville morte parce que <laughs> bépp activité bi nga xamante daan na fi am dañ ko suspendre pour audience yi mën a am Euh, tranquillement man nag maa ngi saluer dispositif sécurité bi nga xamante def nañ ko fi. voilà bunkerisation zone bi yëpp ba nga xamante ni benn intrus du dugg. ñun tey dugg bi sax tey la mën nañ ne le procès s'est déroulement s'est déroulé euh, correctement. Mhm. gisuñu fi benn incident gisuñu fi benn xeex gisuñu fi benn attroupement. gisuñu fi benn échauffourée. Mhm. ça veut dire que ñoom tey jii toute la journée ñoom maîtriser nañ li nga xamante ni mooy situation bi malgré quelques tentation yoo xamante ne am na ay nit yu doon jéem def. Mhm. ñoom ils su gérés. voilà tey boo xoolee fii ba à un kilomètre ñoom ñu ngi def ay jalonnement mhm. ñu ngi def ay patrouille ñu ngi def ay barage pour mën a gérer li nga xamante ne ni mooy euh, euh, situation bi du yàgg dara nag euh, li nga xamante ne ni mooy résultat yi dina génn comme ni ñu koy waxee rek du yàgg dara résultat bac bi dina génn ndax day. premier tour wala deuxième tour non premier tour tour wala d'office. yàlla baax na en waaw loolu dina leer du yàgg dara voilà mais li ñuy ñaan rek mooy euh, ñu bàyyi Bougane pour ñu mën a apaiser parce que situation politique bi mën a apaiser wu tension politique bi mën a parce que man jàpp naa day contribuer ci liy apaiser mhm. tension politique gis nga message bi nga xam ne son excellence le président de la république Bassirou Diomaye fay wax na ko mu nekk euh, benn discours euh, d'apaisement muy inviter les acteurs politiques à plus de responsabilité mhm. ba pare muy ñaan jàmm ci campagne bi ba pare di ñaan ki nga xamante ni mooy Bougane Gueye Dany ñu bàyyi ko mu nekk un discours euh, d'apaisement un discours plein de sagesse mu nekk discours yoo xam ne moom la ñuy xaar ci njiitu réew bi gis nga bu mu defee discours bi après réaction yi ni mu positifee mm-hmm. malgré que tension amoon na malgré que amoon na ay difficultés malgré que ay problème amoon na polémique bi bëri woon na mais naa bu ñu génnee ba def discours dafa def un discours très très sage. mu nekk discours boo xamante ni dama koy saluer. gis ngeen li nga xamante ni mooy auto pénitentiaire bi. Ah, voilà auto baa ngi nii di ñëwaat. auto pénitentiaire baa ngi nii di ñëw. voilà mais mais mais même bu ñu koy bàyyi normalement dafa war a delluwaat même bu ñu koy bàyyi parce que foog ñu def benn ordonnance boo xamante dañ koy jox directeur euh, prison bi moom mooy jël ordonnance boobu mhm. daal di libérer Bougane parce que bu ñu la bàyyi dañ lay notifier ni yow bàyyi nañ duñ rek bàyyi nii nga dem mais dañ la mhm. koy notifier parce que mhm. da nekkoon ci benn maison d'arrêt même bu fekkee détention provisoire la parce que c'est pas définitif mhm. procureur daf ko fa dénkaane woon parce que daf jàpp ne ni bi pareegul pour àtte ko mu daal ko fa dénkaane pour quelques jours mu def euh, diggante bi 10 jours je pense parce que ñu ngi ko jàppoon samedi le 13. waaw ñu ngi ko jàppoon samedi le 13 vers 13h40 euh, fële nga xamante ne mooy ca Bakel. Mhm. après si daal lañ koy euh, indi fi nga xamante ne mooy tribinal bi pour mu taxaw ak procureur. Mhm. après le procureur si la renvoyé waat affaire bi ñu daal di koy yóbbu prison bu Tambacounda mu nekk fa en détention provisoire. Mhm. tey nag moo war a nekk àtte bi moo war a jàkkaarloog juge bi. léegi li ñuy ñaan rek mooy àtte bi mu yem fi mhm. ndax dañ koy tëj ndax dañ koy bàyyi mhm. ak lu ci mun mënte am rek euh, man maa ngi ñaan yàlla ñu jël décision boo xamante ni dina arranger tout le monde mhm. ba tension politique bi mën a wàññeeku parce que ak lu ñu mënte wax instant yi tension politique bi bëri na trop ah heure bi jot na heure bi jot na actuellement il est 17h59 18h. Euh, euh, fii du Dakar fii du Dakar fii Tamba la. non fii 7h naaj bi tàng ba deful naa ko sax 6h du matin naaj bi tàng. ñuy na te gis nga oto bi ni mu mhm. euh, boo xoolee en face si salle boobu la Bougane Gueye. non du yàgg dara moom du yàgg dara décision finale bi génn. bu fekkee tam dañ koy bàyyi dina dem defaraat ay bagages. voilà c'est ça signé yenn papier. voilà ak lu ci mën moo di décision finale bi mais nañ jàpp ni rek jeex na. donc mhm. lépp na yàggatul daal yàggatul mi ngi mel ni nga football war a dem tiro bi instant yi foofu lañ toll quatre-vingt-dix minutes dem na prolongation bi dem na instant yi tiro bii moo des dugal gagné ndax dañ koy jàpp wala dañ koy dugal su ma leen koy expliqué en détail noonu lay demee instant yi nii lépp ci juge bi lay dépendre ñi war a layal bugaan layal nañ bugaan mhm. euh, euh, civil. Bougane Gueye Dany question yu ñu ko doon posé euh, tontu na ko procureur bi gis nga réquisitoire bi mu def di ñaan ñu tëj ko trois mois ak une amende de cinq cent mille francs kon ça veut dire que partie yi mu concerne ne yëpp def nañ seen intervention léegi nag juge bi moom mooy jël ultime conviction am xool euh, d'après intervention yu mu yu mu dégg d'après euh, intervention yu mu dégg ak d'après réquisitoire procureur procureur ak d'après intervention wu défense bi ak partie civile bi ndax dafay condamné euh, Bougane Gueye Dany wala da koy relâché loolu moom si juge bi lay dépendre dépendre turul si kenn moom mooy yor àtte bi Euh, voilà comme ni ko ni ko ni nga ko waxee rek procureur bi si càkkuteefam également ndax boo xoolee euh, ci li nga ko bu ñu sukkandikoo ci bi ñu ko liiree ci texte bi en tout mm-hmm. xamante ni pour olof bi mu yi nga xamante ñoo nekk ci euh, ci seen liggéey nekk ay gendre bu ñu ko arrêté déjà taxawul loolu infraction la jàpp na ni également ñàkk taxaw Bougane également bu ñu ko wanee tegalee barrière bi nga xamante wër ko franchir mm-hmm. Bougane Gueye dafa ñëw daal koy franchir loolu moo tax ñu daal ko arrêté même jàpp na ni également Bougane Gueye Dany si il dit que dit euh, à votre que je serai à Bakel waaye loolu défi dafay euh, tuuti li nga xamante ni moom mooy euh, agence judiciaire mais dafay tuuti li nga xamante ni moom mooy suñu bànqaas bi nga xamante ni ñiy dox ci wàllu yoon dañu koy tere en tout ñetti mbir yooyu mooy trois chefs d'inculpation yi nga xamante ni mooy toppee Bougane Gueye Dany en benn bi jàpp na ni mooy waru woon franchir li nga xamante la barrière ni Euh, moom jàpp na ne loolu délit la jàpp na également ni moom réponse bi nga xamante daal dina koy tontu gendarme bi jàpp na ni moom c'était pas c'était pas et puis nekkul réponse bu rafet parce que bu ko waxee ne dites à supérieur que je serai à donc jàpp na wax boobu moom dafay défier li nga xamante ni moom mooy l'autorité te loolu euh, jàpp na ni délit la en tout cas moom euh, ci chef d'inculpation mais aussi li mu jàpp ni Bougane Gueye dañ ko war tëdd ñetti weeri dëgg xanaa nag juge bi xool ci euh, xëy na nag euh, xool wàllu yërmande parce que aussi loolu souvent juge moom mooy habilité ci mbir moom ndax procureur moom dafay souvent di chargé mhm. moom dafay chargé juge bi souvent juge bi souvent moom mooy moom mooy mhm. par mhm. comme nii euh, li ñuy toppee Bougane Gueye c'est vrai que moo tooñ mais baal saa